deuxième aspect de la question c'est Pastef tey ils sont partis récupérer les parrainages pour le compte de Ousmane Sonko ak Pastef ñu bañal leen ko Ousmane Sonko est retiré des listes électorales Pastef est dissous mais de l'autre côté mu mel ni ñoom ñu ngi soor euh, plan B bi ñu doon bañ euh, El Malick invité naa ko fii semaine dernière euh, mu taxaw de puis ne amul plan B amul C amul Z ñoom kenn mooy seen candidat mooy Ousmane Sonko te dina nekk candidat il est éligible tey on apprend que et ce sont des sources officielles que Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna euh, Abbas Fall Bassirou Diomaye Faye dem nañ yónnee nañ ay mandataires pour récupérer des parrainages. soxna si waa Pastef yaayaat naa leen waaye. Hmm. waaw yaay yaay nga leen de. Ah? ma nekk ci émission. ci beneen télévision matul sax fukki fan ci ginnaaw man leen Ousmane Sonko euh, génn nañ ko ci liste et puis comme Pastef organisation mag la war ñu nax seen bopp dañu war a trouver beneen solution ñu xëy suba lu ne laa dégg kenn ki ni mercenaire la dañ maa yónni pour ma wax loolu ñee ni non c'est faux ñi kii fenkat la am benn sëriñ nee moom sëriñ la de nee na Mbàkke la sant euh, wax ci man wax joo xam ni lu sax Sénégal nit ñuy respecté wuñ seen bopp am ñoo xam ne ñuy analyste lañ ak seen i sikkim yu ngand te li ñuy wax yëpp ay fen la xam man Sénégal rek laa gis ay ñoo xam ne am nee nañ analyste lañ lu ñu wax ay fen la chaque jour on nous donne le micro pour que moom pourquoi moom waa ji ni ñu ne noo xaw ma telle personne désavoue Cheikh Yérim Seck xaw ma le lendemain huissier bi dem ci maire ci kii bi préfecture bi signifier act bi comme quoi Ousmane Sonko est retiré de liste électorale ah wax naa ko fi lu nekk laa ci dégg di wax naa ko fi lu nekk laa ci dégg dañ lay def vocal sa di la saaga bon bref li ma leen waxoon comme seen organisation d'adulte ñu ngi farlu parce que li ñu def nii yëfu mag la mag du ndax boppam waaw Birame Souleye Diop ak maanaam seen tête de pont yëpp dem nañ pour retirer. fiche parrainage waaw loolu mooy moom laa leen digaloon ne leen mag du ndax boppam. comme kële du bokk léegi yéen préparé leen ngeen xool ci seen biir kenn koo xam ni mos naa wax ni nag parti bi mën naa tas. gën naa ne tas bi fii lay. justement fii fii lay quatre personnes fii lay tàmbali. boo amee plan A benn plan nga war a am parce que parce que je loolu aussi bi ma ko waxee waa Pastef yi les mêmes personnes. génn saaga wax n'importe quoi et puis yow bu nit ki waxee sax nga dem ba jëmmi jamono yàlla may ko dëgg lu tax mënoo ko reconnaître Sénégal dans ce pays là. non dañuy tourné waat dëgg bi. après dañuy tourné waat dëgg <laughs> wax ni demee et puis xam nga Sénégal je t'explique. ils sont très forts waaw fi mu toll li may waxaat ni deme dañ koy tourné waat. ñu ni noo dañ ko ko waxloo. sax il faut ñu connaître le motif daal même bu ma ko waxloo. li important mooy dëgg la yow dëgg googu yow da nga ko soxla ci sa combat man su ma doon passé vraiment journaliste bu mel ni Cheikh mu Seck dama koy déglu daal parce que bi ñu commencé béy li ma leen wax yépp teg nañ ci seen bët nag nañu waxante dëgg donc qu'est-ce qui va se passer lii aussi waxoon naa ko ñu may saaga nañu xool kañ la ñuy tànn candidat Pastef ba xam mbirum Sëriñ joble doon voilà Euh, parce que Guy Marius Sagna li muy def nii pour yow dañ ko ko daf ko def nii rek. ah dafa mel dañ ko dee de. ah dafa mel dañ ko dee de. je sais pas man de en tant qu'analyste politique man mënuma gëm ni dafa jóg rek. c'est pas c'est pas anodin. ah c'est pas anodin. bon léegi boo boolee yooyu yëpp nañ bàyyi bañ tànn candidat Pastef ñu xool ba xam li ma waxoon y a des années ba xam dina amam déet. parce que euh, Bassirou Diomaye il reste éligible. waaw waaw mais nañ bàyyi ba tànn. ah. nañu bàyyi ba ñu tànn entre Bassirou Diomaye euh, Birame Souleye bi euh, Marius Sagna ak kenn Abass Fall. ak Abass Fall après on va voir. mais danañ xool lan boo ko xoolee ci benn côté bi. Mhm. ñu ngi jël seen matuwaay dafa mel ni euh, il se rend compte de la de la de la de la de la réalité euh, politique électorale. mais may mun a mais boo ko xoolee ci beneen côté bi. Mhm. quatre personnes euh, est-ce que ça ne pose pas un problème. mais même naa mais parce que parti politique la comme tous les partis politiques comme benn bokk ak comme yëpp y a le choc des ambitions partout waaye dañu gëmloo nit ñi discours nouveau profil nouveau c'est du pipeau ay nit dafa nekk ñoo xam ne ni deret lañu am yaa ngi dégg comprendre dañu am deret am cher di lekk xorom di lekk suukar di toj kaani comprendre si sénégalais bu extraterrestre amu fi comme naa ngeen bëgg ba lu mu la problème de personnes yi am ci yeneen parti yi problème xëccoo yi problème de positionnement personnel yi am feneen moo am Pastef amul yaa yaa aucune différence et puis et puis c'est et puis c'est sain et puis c'est normal mais est-ce benn politicien bu mag nee na ma jëmul àllaaxira mbiru àdduna la <laughs> mais est-ce que est-ce que tu comprends est normal que nit ñi am seeni ambition est-ce que bu Ousmane Sonko empêché hmm. est-ce que du ki ci gënoon a jekk mooy le numéro 2 muy Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. on peut comprendre que ñu wutal une alternative à Bassirou Diomaye Faye parce que il est dans une procédure il n'est pas encore tire d'affaire mm-hmm. euh, est-ce que du ku mel ni Birame Souleye Diop mm-hmm. parce que Guy Marius Sagna il est de frappe waaw Abbas Fall est-ce que am na benn assise politique bi gën ñu ko dégg mu France dégage de wala yow doo suivre discours am. si ah. léegi discours am parce que il faut nga analyser personnage bi xam nga xam nga gi Marius Sagna man c'est un personnage ki m'intéresse ki m'intéresse beaucoup en tant que observateur dama ko mose a suivre moom lu mu bind dama koy lire lu mu wax dama koy déglu parce que c'est un personnage qui m'intéresse xam nga nit ah man dafa am lu may respecter nit le fait de prendre des risques pour ses idées nit boo mënee jël ay risques pour li nga xalaat dama lay respecter xam nga àdduna. Euh, euh, c'est ce qu'il a fait. nit ñi mën nañ bañ a bëggante te respectante xam nga baax li ma la bëgg góor sax bul ñaan sa moroom moroomu góor bëgg la may na la respecté xam nga li ma bëgg a dafa engagé wu chaque fois bu buñ ko mosaan arrêté damay wax ni dañ ko war a génn parce que dafa am sens moom ci Sénégal. Mhm. moom parce que au moins am na discours te li muy wax ci li France di def ci dëkk bi dafa am loo xam ni dëgg la mais par contre boo nee France dégage loolu waxe xale la xam nga li ma parce que àdduna même boo xamee problème yi problème yi dafa nekk ni solution yi nekk fii lu ñu benn France dégage àggaguñu fu ñu ko mën a waxee Sénégal dina ñëw nag mais ñëwagul. Euh, dégg nga baax na ma ñu ñu ngi koy tooñ. Euh, bi ñu ko invité euh, dans une chaîne de télévision française ñu ne dafa il s'est assis. parce que léegi sur ses anciennes convictions. est-ce qu'il n'a pas raison. moo tax ma ni la. est-ce qu'on devrait le le le lui reprocher. xam nga dafa am lu ma la junj. nee naa la gëj na wax France dégage moom ci boppam personnage am ci communication mi ngi koy modelewaat. mu ngi mu ngi mu ngi adapté wu. mi ngi koy defaraat mi ngi jekkal waxam. di jekkal solo bi. mi ngi seeti ay ay mag ay jigéen ay truc di wax ak ñoom man ko koy observer la fan yi ñu weesu moo tax ma gëm ni lii lépp mu nekk nii. defu ko moom rek dañ ko ko defoo. dañ dañ ko ko sant. te am na fu mu jëm moo tax mu koy defee nii mu koy defee est-ce que da nga baax li ma wax. moo demoon ne xaaral bañ tànn pan candidat Pastef. Eh, lan nga bëgg a wax. Guy Marius Sagna serait le choix de Ousmane Sonko. je ne xam nga loolu mënu ma ko xam. Hmm. mais njortu nga ko. mais man gëw ma ni personnage bi ni muy changé nii ñu koy gis ak li mu def yépp récemment tournée bi initiative yi ñu jël ak yépp ak ni mu taxawee gëw ma ne hasard la. non man que dañ doon wax ne Bassirou Diomaye entre Bassirou Diomaye ak Birame Souleye Bassirou Diomaye était le choix de cœur de Ousmane Sonko et que Bassirou Diomaye sax moo ëppoon encrage ci parti bi mhm. et que bu ñu doon wax plan bee tey Bassirou Diomaye lay lay lay doon aujourd'hui Bassirou est empêché mais il n'est pas inéligible euh, Birame dafa mel ni Euh, est-ce que jàpp nga ne biram Souleye am na chance su euh, capter euh, mu tudd l'investiture de de de de Pastef il est maire de Thiès. en tout cas les puristes les radicaux dañ koy contesté moom. biram Souleye. waaw c'est comme si moom il incarnait l'aile modérée quoi xamal suñu doon def ay classification selon la nomenclature des partis politique traditionnels dañuy wax ni moom. que Diomaye c'est l'aile dure et biram Birame Souleye c'est un peu plus l'aile modérée parce que les puristes les les moom dañ koy critiquer lu bari. dañuy contester Birame Souleye